mën ko eh toogal toogal nii uuf ko noonu Malick borom daaru mi ngi noonu génn si na maam Thierno borom daaru Birahim Mbacke moo génn noonu di saafoonteeg taabu mbokk taalibe yi. kaamil yi ñu koy jébbale. ñu ngi koy jébbale waa Ndar yi. macha ndaw ñi yëpp nekk si ginnaawam wóolu ko yaakaar ko. waaw sant bu baax rek àggaleel sëñ Moussa Mané. waaw mooy jëwriñu Ndar moo taxoon. ndeysaan ndeysaan ngi noonu Malick. maam no Birahim mbakke ndaamal daaru la marabu di peuple génn na nee na mbokk yeeg taalibe yi ñu dal ànd ak dal te déglu ko ñu déglu Baye Moussa. saa su nekk lu mu <laughs> daaru nee na ñu jël image rek te te te teewlu ko noonu ndeysaan ak a baax borom daaru te bëri yërmande Malick ni koy gisee noonu. taalibe yi doon ko siyaar si ci bésu maam Thierno mu ñu noonu mbokk yi yéen a ngi koy suivre en temps réel ci Sunugal 24. balay sa buri maam Thierno Birahim Mbacke Noreyni génn di saafonteeg mbokku taalibe yi nga xam ne ëllëg moom mooy màggalu ko Daaru Muxti tey ñu ngi fii ci Sikori fekk si fii ki nga xam ni moom moo di maam Thierno borom daaru mu nekk noonu di wax waaye kàddu yi nag joxuñu ndigal ñu tàllal micro yi moo tax. ñu koy commenté ci suuf noonu mbokk yi xaritu internet di nee na moom mii bi mu koy jël liggéey bi foofu di ko jox boobu métti na ci moom métti woon ci ci ki mu ko jox waaye li taxoon moom mu def ko maam Thierno moom moo ko xam kooku digganteem ak Seydina Ousmane rek la ci la ci xam ndax liggéey bi ñu yor nii te ñu jox ko ko responsabilité bi ci moom la nekk liñ ci xool bañ nañ def lii loolu jarul natable ndeysaan fii li fi dox mooy ndigal da ngay déglu ñu wax la liñ la wax nga dem boo ko mënee nga dem def ko boo ko mënul nga jéem fu sa kem kattan yem li de sama borom mottali la xam nga loolu yombul mi ngi nii nag képp koo xamante ni bii ah, pap nan pap bari pap bari pap bari moo fa nekk di soog a taxawal ànd ak ñenn hmm. moom it ko yabal dina ñëw ba ci yéen ngeen boole liggéey bépp ndax njaboot gépp njabootu Seydina Ousmane la man xamee wu ma kii taalibi sëñ Muudu la kii taalibi borom daaru la kii pa taalibi sëñ Abbas na kii man loolu sama yoon newu ci man xam nga lu ma yitteel mooy Seydina Ousmane moo ma yitteel man du dëgg Seydina Ousmane rek laa xam ngeen fii ngeen may nii fii nii giñ naa ci Seydina bu ma fi kenn fekkul yoon ma toog fi xaar yàlla sama borom te xam ne dina ma fekk yéen ñi nag la ma yàlla sama borom booleel ngeen di bàyyi seen i soxla di ñëw di ma fekk kon lii dëgg rek laay mën a wax ak yéen du dëgg Baye Moussa ngi nii maa ko teg ci seen kanam te ba ma koy def sëñ Moodu moom laa loon ab liggéeyam parce que ñu bari dañooy jaawale taalibe yu bari dañ may gis mais dañ ma doon gis mais xamuñu ma xamuñu ci man dara jéemuñu ko woon sax gëstu intéressé wu ma leen woon kooku ñoom la waaye nag bu ma dellu siwaatee ba doon Seydina Ousmane ca barab bu ma ne dootul kële de loolu man la du dégg kon il faut que nit ñi xamaat loolu man Seydina Ousmane kese sëñ Modou moo fi nekk nekkal fi Seydina Ousmane ma topp ci ginnaawam lu muy liggéey ma ma nekk cee jàpp ci waaye nag dafa am luñ ko jox mu téye ko di ko doxal ma it ma am luñ ma jox ma téye ko di ko doxal ma dëxëñ lépp teg ko ci ginnaawam ñuy ànd di dem waa bu demee ba jot ñun lañ nag li nga yoroon jël ko nga dem defari ko doo dem defari. aw ma ci sañ-sañ waaw même bu ma ci amutoon sañ-sañ sax ca sama borom dogal ko lu ma ci mën yàlla suñ borom kenn du xëccoo ak moom man nag du ma ne li ba suba ma waxaat lële nekkuma fi di leen wax naan leen weex na wala te lu mu fekk mu ñuul wala mu xonq ma naan leen nii la demee déedéet loolu boolewuma ak yéen ngoroo ma booleeg yéen ak jom ak fulla ngor googu laay doxee ak yéen ak jom jooju ak fulla jooju keneen ku ci am beneen xam-xam baa nga am ci leneen looy def nag man wax dëgg yàlla loola moom concerné tout moom man génn naa ca loola du dëgg Baye Moussa ngi nii képp koo xamante ni bii da ngaa yaakaar Seydina Ousmane te nekk foofu te bu ma la waxee nga dégg ma man borom daarum Seydina Ousmane mi dama bëgg lépp lu ngeen di defati ngeen jokkoo ci ak moom ba mu jox leen ci ndigal leneen lu ngeen di fu ngeen jëm lu ngeen di def ngeen def ko sànq maa koy wax ma ne ko man tol-tolaan bi ngeen di def ci àll bi moo ma xaw a moo ma xaw a moo a diis tuuti ci man mais dina jeex dana jeex parce que li ma sama bëgg mooy dem ba njabootu Seydina Ousmane gii nga xam ne dañoo bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi mam bàyyi askan ñëpp fii borom daaru moxti joxoon Seydina Ousmane te bu ñu ko jox yaakaar moo taxoon njabootu Seydina Ousmane gépp di daje fi lu xew ñu di ko fi def parce que lii ñu def nii l'islam yi kese la diine kese la yàlla kese la daray tappale wala daray caaxaan nekku ci man doxuma ci yooyu kon nag bu ko defee bu ngeen delloo ngeen gën a doolee góorgóorlu bu baax ngeen def ko foofu mu nekk fa nekk ngeen jàppee ko mu doon Seydou Seydina Ousmane foofu parce que bu ngeen ko xoolee bët boobu rek loolu rek ngeen di gis mais bu ngeen xoolee ci moom leneen baa ngeen déglu ci moom leneen nit ki loo xool ci moom rek loolu ngay gis loo déglu ci moom loolu ngay dégg te jamono ji daa am fu mu toll te bu ngeen delloo ndar yëngu-yëngu yu bari yii bu ma leen ci dégg bu ma ci gis ak nu mën a demee bu ngeen doon xiif bu ngeen doon fanaanoo xiif di ko yendoo itam seen ngor ci seen poos dégg ngeen li seen ngor na ngeen ko denc seen poos bu leen kenn xamal ku leen war a xamal sax bu mu leen xamal waxuma laak na ku leen war a xamal ñàkk-ñàkk koom-koomu àdduna wala lii daman wuti yàllaa yor ñëpp ku wut yàlla jox la barke maam Thierno Birahim ku wut yàlla jox la ñi ko gëmul sax ña ngay wuti mu di leen jox la ñoom ñu doyloo ko mu doy leen sëkk nag sakkantuma ak ñun ñi nga xamante ne bii jàpp nañ ñi ni gëm nañ ko kon nañu góorgóorluwaat bu baax a baax Baye Moussa njaboot gaa ngi nii njaboot gaa ngi nii loo fo wax nit mu moy ko na ko seere ni bu ñëwee ci ñun mi ngi mel ni li may wax rek yàlla sama borom dañoo digal ñuy julli digal ñu ñuy woor digal ñu ñuy jàng alxuraan ku ko defut te boo ñëwee ci man bu ma la digalee nga jëf naa fekk nga naa feq nga kat ndax nit ki doomu aadama bi mënoo faa bay ndigalu sa borom dem di jëfe sa ndigalul morom faut pas ñu nekk fii ci bi di naxanteeka wooranteeka def yu ma la mënta wax am nu ne nu ne nu ne nu ne ñi ngi koy tëggee ñu ne ñi ngi koy wëlbatee ay tappale la ay caaxaan la rek wóor na Seydina Ousmane Bakke noonu ay caaxaan la li ñu sama borom digal nañ ko digal nañ ko jëfe ñun dañ leen di fàttali rek digaluñu kenn dara à part li Seydina Ousmane waxoon te foofu maqaamu moomu àgguñu fa sama borom yabale ci ñun ni neel diw nangam war na koo dal na def nangam pour ñu tegal ko loola àgguñu foofu de du man du sama morom àgguñu foofu nañ bàyyi ba àgg foofa bu boobaa leneen lay doon bu boobaa dootuñu digle ngir bakken waxatuñu ngir bakken bu boobaa déedéet kon na ngeen moytandiku bu baax a baax lu ngeen di dugg na ngeen ko xam lu ngeen di def na leer nañ bu leen kenn dugal ci lu ngeen xamul bu leen kenn dugal ci loo xam ne ak rëccu moo cay mujje bu ko njaboot gaa ngi nii na ñëpp topp ci sa ginnaaw yéen ñëpp na ngeen topp ci ginnaaw mu jiitu nekk seen kanam dégg ngeen ko Pape Sidi dégg ngeen ko yéen ñëpp aussi dinaa ko gis wax ak moom bu ko defee dina ñëw jokkoog mbooloo moom yor yëpp terewul nag màggal bu jotee mu ànd ak mbokk taalibe yi dem defuk rafetal ca nam koy defee parce que xam ngeen ni moom léppam Seydina Ousmane ah kon nag ki fi nekkal Seydina Ousmane mënu ko faa romb di ñëw fii man na bu ko day dem ca moom ba noppi bu fa jógee ñëw fii ànd njaboot gi ñëw fii loolu c'est c'est loolu mooy logique adduna da koy jàngate ci xel mu rafet mais bu fekkente ne kenn ku nekk daa bëgg a jël xelum boppam ca nam koy xalaate rek di doxee noonu dara du sotti du dëgg kon nag da ngeen koy bàyyi moom mu dox ngeen topp ci ginnaaw mais nit ki mënoon ni ko doxal jiitu ma ba noppi foo toll nekk ci ay tànkam rek nu muy doxee du dem njaboot gaa ngi noonu bu ci hésité loo ci war a wax waaye na nga ko ko woo ba mu ñëw nga wax ko ko te boo ko waxee na ko def na nga xamante ni noonu la ko noonu la ko dégg dégg amiin yaa rabbal aalamiin léegi nag bu yi passé bu yi passé dinaa ñëw incha allah incha allah. digal ñu dem borom daaru. loolu digal ñu dem aji ji waaw matériel ak kaamil matériel si tamit su ko ne jàll waaw ko fa bàyyi ko après ñu yóbbu ci jàkka ji Youssou jëlee mën naa xoolal la. waaw bii moom yaakaar sax la woon. micro yi micro yi. xaaral xaaral ma jël micro yi. foog nga may defal ndànk. andi andi andi waaw defal ndànk xaaral xaaral micro yi moo tax micro yi. ndànk ndànk ndànk yow da nga joxe kaamil n'est-ce pas. waaw yow kaamil da nga ko joxe waaw nga jox ko mu dem moo gën yow ngay jéggi jox ko rek. waaw camion bi day dem laa. waaw jox ko ko jox ko ko. waaw waaw man micro yi laay bañ a dagg micro yi. jigéen soraale leen jigéen soraale leen jigéen soraale leen jigéen soraale leen soxna soraale leen soxna waaw. Bayang bayang. Kurang jauh ya, bayang. Kurang jauh ya. Orang juga, orang juga mari.